waaw kon mu mel ni ñoo ngi toog ak jëwrin sëriñ Cheikh Mor Faye nga xamante ni moom mooy jëwrinu kër gi yor kàdduy kër gi di seexu Cheikh Ibrahima Ciss mi nga xamante ni mooy borom kër gi te tey Serigne Babacar Ciss di xalifaam kon mu mel ni sëriñ Mor mi nga xamante ni moo yor kàddu gi moom la ñuy jox kàddu gi mu nuyoo ba noppi ñu soog a dem ci laaj yi Serigne Cheikh Mor ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah di leen nuyu di nuyu rajo bi li tàmbalee ci kilifa gi ba ki gën a tuuti ci ki gën seete suuf mu ngi leen di nuyu Cheikh Abdou Khadir e kër gi Cheikh Ibrahima Ciss moo fi nekk xalifaam léegi di Serigne Babacar Ciss daanaka mm, gàmmu gi fekkoon nañu sëriñ bi di ko def waaye bii nga xam ne bii nag feesal na ko mooy ndigal ak Serigne Saliou Cheikh Saliou keroog ba mu toogee ci jal ba la feddaliwaat màggal bi ak gàmm bi mu wax nu ni fépp fu taalibe nekk te waa dëkk ba di gàmm amul tiijaan amul murit amul xaadir soo fekkee ñuy gàmm na leen jàppale ci gàmm ko waaye boo leen ñëwee te fekk dëkk ba amuñu duñu def gàmm na ngeen fa sos gam te fekke njaay bopp fii guddi laylatul mawlidi nabi ken duko gam gàmmu taxit ñu sos gam gi ci ndigalal Serigne kon mu melni ci ndigalal Serigne Saliou ngeen defé gam gi la ta ndigal li est-ce que gamu, ngeen def gam waaw tambalon nañu dina ñu fi gam waye doxon nañu gam gi nga xamni bi ñom Serigne Assane ak ñom Adama ak babakar moy mbay ngoma doon nañu jóg bu guddi gàmmu jotee ñu ñëw wët seen suukar fi di màggal guddi gi ba sëriñ bi joxe ba sëñ Saliou joxe ndigal nag la ma sëriñ bi wax ne sëñ moor ma ne ko Cissé mu ne ma loolu kat mbiru xel la woon waaye waxu mag dugg na ci biir sëñ Saliou nee na léegi fu fu taalibe nag nafa samp ma bëggoon nag ñu ñu ñu samp fi guddigi looloo indi ñu samp guddigi waaw kon mu mel ni kon bi sëriñ saalu joxee guddigi ba tey yéen a ngi koy gàmmu boobu ba tey noo gisee gàmmu gi eh, ba nu ko gisee nu ngi sant yàlla ndax dama laa tàmbalee ni café ba ko sëriñ saalu waxee te mu bettinu bis boobu jamono jooje jën lañu toggoon dañu ko jindi dem jëndi ay jën màggal guddigi waaye ba loola weesoo ba tey ji doon takk guddi gàmmu ak màggal gi matul weer da ngay seet fere ya ñuy def Touba ak li taalibe yi def waaye teewul guddi gi lu nekk dinañ ko fi def lu nekk it jaral na leen ko ba ñu ko defee léegi ba jamonoy sëñ Saalihu sëñ Saliou nelaw jamonoy sëñ Baara sëñ Baara nelaw Cheikh Sidi Muxtaar nelaw tey ñuy ñaanal bu baax eh, eh, nuy ñaan yàlla mi nga xam ni bii mooy yokki ay fan te def nit di wëral nit yàlla yàggal fi sëñ Muntaxa te yàggal ko fi mu yàgg jiite yoon bi di naal yi mu naal nuy ñaan yàlla yonent bi Serigne Touba yàlla na ko eggale te nu ànd ceeg moom nuy ñaan it sëñ Babacar mi yàgg fi lool bi jaahi Serigne bi waaye di ñaanal it waa addina bi yëpp ci feebar bi nuy wax yàlla na ko yàlla dàq bi jaahi Serigne bi nuy wax ni laylatu mawlidi nabi bii ñuy def sëriñ bi dafa waxoon ni amul tijaan amul xaadir amul laayeen amul kenn kuy julit woo nañu la ci nga ñëw ñu san ñu ñu màggale ko ndax yàlla mii nu bind moo jëkk màggal yonente bi mu wax ni man yàlla julli naa ci yonente bi maag samay malayka na ngeen ci julli ci moom kon loolu màggal mënu ko weesu ci loolu la ñu sukkandiku di ko def te Serigne Touba daf nu wax ne taasimuxoo bi sunnati yaa naa lil jannati bi isdiyaadil minati Serigne Touba nee na ku ko màggal te teg ko ci sunna dina la womat ba ajana loolu moo tax it mu dafa muy def naa gàmm kon tanzimaho bi sunnati yaxiduna li jannati la Serigne Touba wax mu mel ni kon ci islaam bi itam am na ñuy wax ne gàmmu bidaa la maanaam ñi wax ne gàmmu bidaa la ba duñ ko màggal ñoom it te ñuy ay jullit loolu loo ciy wax. la ma cay wax lu dul bidaa loo xam ne lii bidaa la bari na ci diit la bidaa mooy lu nit sos la nit ñi sos léegi te ñu koy jëf loolu bu fekkee ne lu ca waay jëf bidaa la kon mocc lislaam bi yëpp bidaa la. kon mu mel ni sa kàddu yu mujj lan lay doon kon. sunu kàddu yu mujj yi mooy sant yàlla ak yonent bi Serigne Touba di sant eh, sëñ Babacar di ñaan sëñ Muntaxa bi yàlla yàggal ko fi te wéral ko lanuy mujj na mooy ñaanal seen rajo bi yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na jóg te jëm kanam bi jaahi rasulullahi ndax lii ngeen di def kat sama sëriñ nee na sëriñ boo gis ak dëkk goo gis mbaar la ay nit a koy yëkkati. kon lii ngeen di def xit yëkkati la ndax dina yóbbu turu dëkk bi fu mu eggul nuy ñaan yàlla yal na leen yàlla defal jàmm dafa di nag sëñ Abdou Khader waxum nit ñi bu leen topp da ngay topp seen jëf baraana koy wax ni gàmm bidaa la boo demoon seen kër gis ma loolu bilaa waaye da fay gis jaamu xërëm kon nun ñii nga xam ne bii lu sëriñ tubaa wax lu nekk moo nu gënal lu mu waxul lu sëriñ tubaa def lu nekk moo gën moo nu gënal lu mu deful te Serigne Touba def guddi weeru gàmm gii ak weeru koor sëriñ tubaa fa mu leen teg tegu fa benn weer kon Serigne Touba lu muy def kenn kenn kenn lu dul ni moo baax mënuñu koo dégg li Serigne Touba yi def daal moo gën lu mu deful te Serigne Touba dafa doon gàmm ci njaare jërëjëf Serigne Mor kontaan nañu baax baax jërëjëf.